ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokki internet yi safo ci seetaan Sunugal 24 mbégte la ñu am saa su nekk di janoo ak yéen waaye mbégte la ñu am eh, di janoo ak jëmu ji nga xamante ni tey ji moom la ñu fekk si war a waxtaan ak moom eh, ci lépp li nga xamante ni eh, tolluwaay lu réew mi la muy actualité ñu koy mu Mamadou moom Mamadou Gueye nekk président bu parti leneen di membre benn Bokk Yaakaar waaye aussi nekk maire bu Djiddah Thiaroye Kaw ñu bàyyi ko mu daal ci nuyoo ñu soog a jaar ci waxtaan bi Mamadou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay ñu ngi am mbégte bu baax ci di leen dalal di am mbégte aussi di jàkkaarlook euh, internet yi ñuy seetaan yëpp ci Sunugal 24 di ñaan yàlla émission bi nekk émission bu am njëriñ mais émission boo xam ne aussi Sénégal yëpp dinañ ci bàyyi xel ci contenu bi ak euh, ci jeexital gi. Euh, ñu daal di jàll ci waxtaan bi dooree ko ak euh, li nga xamante ni moom moo di rapport la euh, Cour des comptes moom moo ko def jëm ci wàllu wàllum fonds Covid 19 force fonds Covid 19 mu nekk loo xam ne si ni épingle na lu toll ci une dizaine de ministères yoo xam ne si ni ñu ngi leen ciy tudd jàpp ne la ñu yore woon alal joojee jaarul yoon mu nekk jur coow lu bëri loo xam ne si ni intéressé na tamit population bi gis nañu rapport bi daanaka coow li moom benn rapport mosu ko am ñu koy partagé ci réseaux yi ñi aussi di ci xaar ak jeexital euh, euh, en tant que politique euh, en tant que koo xam ne si nii yaa ngi ci benn bokk yaakaar mu nekk benn rapport boo xam ne si nii ñu bëri dañuy wax du nga nekk à l'aise pour pour wax ci parce que li ci xew la ban jàngat nga ci am ci rapport boobu monsieur Guèye. ah man de je suis très à l'aise pour en parler euh, pour la simple et bonne raison que justement su dee damay raisonner en tant que politique damay wax ni le président de la République son excellence Macky moom moo jox gëdd. corps de contrôle yi gëdd bi ñu am tey ci nii moom moo leen renforcer aussi bien en terme de moyens humains qu'en termes de moyens financiers en termes de moyens institutionnels moom moo fi indiwaat yeneen euh, corps yoo xamante ne si xëy na amuloon ci dispositif bi pour justement que transparence nekk loo xam ne mooy suñu mode de gestion beneen bi aussi moom moo di ne euh, bu ñu fàtte ne force euh, euh, fonds force Covid 19 bi dafa nekkoon loo xam ne daanaka dañ ko estampillé woon mën naa ne compte tenu de l'urgence loo xam ne dafa amoon benn caractère confidentiel et secret kon nekk na fonds yoo xam ne bu soobul woon président kenn du ko càmbar loolu mooy l'aspect politique pour wax ne kon bu fekkente ne am na coow lii mu jur c'est parce que président la soob ñu dem gëstu ji. pour xool ndaxam nañ ko yore woon jaadu na am déet beneen bi stop aussi boo xamante ne si day dellu ci analyse politique bi moo di ni président ci kàddoom nee na amul kenn koo xamante ni si daf koy jeter en pâture maanaam koo xam ne daf koy yóbbu à la vindicte populaire wala pour di di nasaxal kenn waaye it corrélativement amul ci kenn koo xamante ni si dina ko protéger bu nekkente ne convaincre nañu ko ci ay fautes yu mu def personnellement maintenant ma dellu si ci analyse en tant que technicien. technicien des finances mu nekk loo xamante ne si damay jàpp ne un audit dafa nekk lu normal dans zone euh, processus de gestion dafa am ñoo xamante ne si sax même bu ñu tegee organisation dañuy teg benn dispositif d' audit interne pour permettre ñuy xool toujours ndax la ñuy def méngoo na ak procédure yi ñu tëral pour def ko en réalité audit loolu lay loolu mooy premier jeexital bi pour dellu si maintenant ci rapport Cour des comptes bi daf ci am ay niveau yu bëree bëri yoo xam ne dafa nekk ay niveau d'analyse yu jara bàyyi xel bi si njëkk mooy fonds fonds boobu noonu ñu ñu tegoon mille milliards la euh, li nga xamante ne si moom mooy décaissement yi toll ci six cent soixante cinq milliards à peu li nga xamante ne si moom mooy euh, li ñu ci def ay mesures fiscales ak yooyu toll ci trois cent trente trois milliards à peu près donc li nga xamante ne si moom lañu ñu épingle ci décaissement yooyu yëpp. mi ngi toll ci six milliards ak lu topp tuut lu bëri la nag ci xaalisu Sénégal parce que fukki dërëm yu ñu jël ci Sénégal rek bëri na parce que lu ñëpp bokk lu ne ku ne da cee nekk donc kenn waru koo def yëfee moomeelu boppam mais ce faut retenir dans un premier temps moo dina ci six milliards yooyu am na ci yoo xamante ne si nekkul ay ay disons ay faute pénale maanaam dafay nekk ay faute yoo xam ne day day day da ngay dañoo teg ay procédure dañoo teg maanaam ay yoon yoo war a jaar nga jaar ca ñàll ga donte le résultat peut être le même pour joxe ci benn exemple euh, ministère de sports dafa waroon a jàppale équipe yeeg yenn sportif yeeg ñoom seen mu am benn loi au Sénégal bu teg ni bu ak paiement bu waree voilà bu waree dépasser cent mille francs dañ ko war a def soit par chèque wala par virement léegi ki nga xamante ni si moom moo yore pay pay fay yooyu. su fayee un million mu fayee ko en espèce def na faute fay na pourtant faute la def jaarul fi mu war a jaar donc am na ci yu mel noonu yoo xamante ni si ay faute la mais entraîné wul loo xam ne dina dina jural préjudice trésor wala ñun peuple sénégalais kon yooyu faaw ñu distinguer ko am na ci yeneen faute yoo xam ne effectivement dafay indexer la personne bi posé l'acte du ma du ma wax kii wala kële. cité nañ ci daaj yi entre autres. donc yooyu tamit ñoom dañuy dem répondre parce que chaque année am na ci ay dages yuy dem di répondre ci loo xam ne xëy na kenn yëgu ko ñu dem wuyu ji ci seen cours de discipline financière soit ñu fay loo leen wala ñu wax leen ne leen kat lii ngeen def nii war leen ko woon defee nii su dee ay faut personnelles la yoo xam ne ñoom lañ ko mën a imputer soit dañuy fay bu dee ñoom ñoo nangu ne dañoo juum et que njuumte bi xëy na entraîné na loo xamante ne si lu ñu war a fay la wa bu dee sax dem na ba ci war a jéggi loolu mu def ko te loolu nag li ci président wax daf ne mu nekk DAGE mu nekk ministre mu nekk keneen ku mu mënti doon bu dee liñ la jiiñ dem na ba wóor ne lii loo def la te sa faute mi ngi ci moom protégé wu la c'est-à-dire que ay institutions judiciaires dinañ ko ubbi et bu waree jàll foofu tamit. dina fa jàll donc man loolu vraiment daf may doy en tant que politique daf may doy aussi en tant que financier. d'accord euh, euh, c'est-à-dire euh, problème bi nit ñi yenn nit ñi am mooy que ni sànq yaa ngi si ay biir wax nga ni président de la république waxu ni dafa génne rapport bi pour jeter des ministres en pâture ak yu yu yu mel noonu mais su ñu gisee rapport yi fi mës a jaar yëpp daanaka amul jeexital bi ñu gis engagement bi nga xamante ni président de la république am na ko ci ci rapport bi cest dafay dafay jox nit ñi ay doute ñu am yaakaar ni dafa am ñoo xam ne si ni tey dafa bëgg régler ay compte ak ñoom ñi nga xamante ni ay ministre lañ soit euh, am na ñuy gisee sax dafa am ñoo xam ne dañ ko commencé di tenir tête ci troisième mandat bi loolu tax mu génn li nga xamante si moom moo di rapport bi pour mën a téye seen ay gémmiñ non je pense que des procès d'intention il y <clears throat> bu fekkonte ne dafa dafa jël njabootam ñàkk leen ñu ne woy dafay dafay dafay dafay bañ ku laal njabootam bu fekkente ne neen na léegi nag du ma protéger kenn ñu jox ko yeneen intention mais je pense que li solo moom mooy ne ni ñun sénégalais ñun ñoo doon bëgg benn gestion bu sobre et vertueuse tey jii bu ñu tegoo ci rampe yooyu noonu ñun ñëpp dañu war a tàcc ñun ñëpp dañu war a félicité wu ci loolu maintenant encore une fois pour dellu si ci rapport yi fi daan jaar les rapports les contenus ñun dañ ci jot ñun public bi mais jeexital bi yenn saa yi comme je mu am yoo xamante ni parce que tamit dañu nekk ci dëkk sutura dañu nekk ci dëkk boo xamante ni sii loolu yoon daf koo maye. maanaam nit ki bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko jiiñee même bu dee moo def parfois am na ay yoon yoo xam ne mën na ko éviter loolu la prison et loolu moo gën sax ci société bi parce que parfois day fay bu fayee moo gën mu tëdd loo xamante ne si day nekkat à la charge de la société parce que dinañ ko jox mu lekk dinañ ko jox mu naan fa muy tëdd dinañ ko éclairer et cetera et cetera te du fay donc pour dire que euh, lii ñu war a félicité wu mooy bañ a jëm ci ay procès d'intention waaye xam ni kat li ñu doon laaj ci gestion bu ñi ngi ci yoon woowu noonu après nag ñu xool. fan lay mujjee képp koo xamante ne si def na ci jalgati mais bu nekkee euh, ku and ak président wala ku àndul ak président wala ku koy tenir tête ak yooyu je pense que c'est pas ça jàpp ma ne man de ci li ma xam vraiment je suis dans la mouvance wax dëgg nekk naa ci ay niveau de décision yu xaw a kawe euh, gisaguma koo xamante ne si mi ngi ci am yenn comportement yi wala yenn yenn défiance yi vis-à-vis de du chef wala de quelqu'un d'autre Euh, d' accord ñu jàll ci beneen point bi euh, rapidement muy euh, li nga xamante ni moom moo di président de la république gis nañ ko jamono ji mi ngi fi nga xamante si moom moo di Tamba muy benn visite économique boo xam ne si ni daf koy daf koy amal mais ñu bëri dañ ci gis benn coloration politique jàpp ne président de la république fi mu ni moom mi ngi ci campagne campagne déguisée lay la nekk di def bu ñu gisee tey mbumbaay mi muy def fa li nga xamante ni moom moo di Tambacounda donte mi ngi fay inauguré route inauguré na également benn camp militaire. Euh, tey booy dégg wax yooyu tey ban sentiment ngay am en tant que koo xam ne si ni tey si un membre de Benno Bokk Yaakaar. je me félicite que ñu mën a def Mumbaay pour di inaugurer parce que en réalité président dañ ko fal pour mu pour mu liggéey réew mi. et aujourd'hui bu fekkente ni dem nañu Tamba ngis région bi nga xamante ne si xëy na c'est l'une des régions les plus éloignées de la capitale mu am ce niveau de réalisation il faudrait que ñun sénégalais ñu ne gongo xam ni kat président lañ ko sasoon mi ngi ci xëy na ba def sax lu fonk suñu njort parce que niveau de réalisation d'infrastructure bi ñu am en douze ans wax dëgg nekkul woon loo xamante ni si mënoon nañ ko séntu sax en vingt ans et pourtant on l'a fait donc loolu lu ñu war a lu ñu war a sant la beneen bi aussi moom moo di ne un président de la République buy déplacé wu dem à l'intérieur du pays lu lu lu jar a sant la parce que dina tax moom mu gisaat. na tey Mumbaay bi ñu ciy def comme meeting. mel na ko dafa am lu muy wut. non Mumbaay bi responsable fa nekk. dina jaadu seen kilifa ci politique buy ñëw ñu dalal ko nit nag boo koy dalal da nga koy dalal ak li nga am li ñu am moom mooy seeni nit buy ñëw ñu dalal président ak seeni nit wan ko ne ñun ñu ngi lay tatagal fii nga ñëw safoon nañ la fi fii nga ñëw faale nañ la fi maintenant je pense que la lecture politique qu'il faut peut-être peut-être peur moo di ne dafa bëri woon ay ay ay ay désinformation bëri woon xëy na ay ay wax. comme quoi la jeunesse dafa dëddu président jeunesse bi àndul ak Benno Bokk Yaakaar mais soo gisee engouement bii soo gisee euh, niveau d' engagement bii te jeunes yi ñoo koy def jeunes yi nga gis ñuy daw jeunes yi nga gis ñu am rassemblement yu bàkki mais loolu je pense que dina dalal xelu ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun mais aussi dina yokk tiitaange ñi nga xamante ni ànd ñoo ak ñun et ñooñu justement ñoom ñooy nekk peut-être dans le rôle d' opposant pour man loolu c' est même pas c' est un fait divers que opposition bi sànni ci xeer wala wax ci naka sudul noonu c'est normal parce que opposition dafay opposé wu donc du gis la preuve et ça peut-être moi je le regrette parce que damay jàpp ne quand même on est dans un état euh, républicain boo xam ne opposition war na mën a opposé wu mais tout en reconnaissant les mérites du pouvoir yàqul dara ci sa sa posture d'opposant mais aujourd'hui vraiment malheureusement on est dans un nihilisme continu chaque instant bu ñu gisee ñu def lu baax sax dañuy dañuy naye wax ni lii lu baax la pour man loolu yàqul dara ci seen mérite en tant que opposant yàqul dara aussi ci seen taxawaay en tant que opposant ñu mën a ñëw proposer un programme alternatif mën a ñëw wax ne ñun lii lañ nam ci Sénégal bi ñu bëgg ngeen dénkuñu ko bu wuute ak li ñuy jot a def ñun bu boobaa xëy na sénégalais arbitré d'accord ñu bëri nag gis ci benn échec euh, par rapport ak euh, première visite bi mu fa def defoon fa conseil euh, des ministres daal di fay def promesse boo xam ne si daanaka tolloon na ci deux cent milliards yu mu war a dugal foofu ci région boobu mais tey bu ñu xoolee région boobu dañuy jàpp ne depuis mu defoon li nga xamante ni moom moo di conseil ministériel boobu ba léegi maanaam deux cent milliards yooyu feeñul ci fi nga xamante ni moom moo di Tambacounda. Ah, mais man je bien moo xam yan critères la ñuy apprécier. beneen bi moom mooy euh, gis nga président buy engagé wu ci benn région wala benn benn gox li ñuy wax planification ci loolu la cest def dire daf ci am yoo xamante ne si c'est des projets de court terme mooy li nga xamante ne si président jóge na fi teykat fi ak at wala ñaari at dinañ ko gis am ay projets de moyen terme yoo xamante ne si dina étaler wu peut-être sur un horizon de cinq six sept ans am peut-être beneen horizon temporel boo xam ne mën na gën a ëpp loolu maintenant euh, planification bi nag ñun Sénégal dañu yàkkamti man man mi nekk maire Djidda Thiaroye Kao xam naa si dara parce que population yi jàpp nañ ni bi ñu ma falee li ma doon wax ni lii nam naa ko si Djidda yëpp dama ko war a def léegi léegi léegi léegi donc loolu mooy tax ba yenn saa dafay am hiatus entre ñoom li nga xamante ni si jàpp nañ ni kat lii président waxoon na ko rek tout de suite dafa war a feeñ mais ñu ngi ci tànk yi parce que tey boo xoolee Tamba bu 2022 nga xool Tamba yaa ginnaaw dix ans ci ginnaaw li nga xam ne am na ay jéego yu yaatu yu ñu def ci région boobu noonu ju parle de la région tous les départements muy Bakel muy euh, Tambacounda muy muy Goudiri da nga gis ni yokkute am na fa bu baax en terme d'infrastructure en terme même euh, de de d'investissement yoo xamante ne si dafa jëm ci élevage bi ci ci ci ci ci mbay mi ak ci yeneen activité yi nga xamante ne si mi ngi foofu biir Tamba ba ci activités yi accompagner jeunes yi et cetera et cetera donc jàpp naa ne effectivement ñi ngi ci yoon maintenant nag comme ni ñu koy waxee ndar xëyul sotti lépp mënut a nekk ci benn jotaay donc président la mu wax dina ko def. mais dafa nekk un processus. d'accord euh, adresse à la nation euh, bu président de la république quelques jour moom moo ci des euh, pour mu janoo ak euh, askanam wax leen li nga xamante nii loolu la def ci réew mi ak li mu nar a def mais ñu gis ca wàll ga waaye yeewu askan bi ne dañuy amoon li nga xamante ni moom moo di concert de casserole ci même heure bi nga xamante nii ci la adresse à la nation bi di am tey ñu bëri jàpp ne loolu mën na yàq. wala mën na euh, salteel li nga xamante ni moom moo di message bu président de la république euh, mën a war a mën a jàllale waaye tamit message la tamit boo xamante ni waaye yeewu askan bi mën nañ ko jàllale euh, pour wax Macky Sall que ni kontaanuñ ci yow doyoon nañ ci yow. waaw man de dama jàpp ne am réew boo ko dee yootu dafa am ay bokk moomeel yoo xam ne da ko war a sàmm te président de la république institution la dañuy wax naan c'est la clé de voûte des institutions on ne parle pas de la personne on parle de ce que cette personne représente pour notre pays ak li muy représenté pour ñun nation bi ñu doon jàpp naa ne kooku dafa am benn wegeel boo xamante ni si wareef la ci ñun en tant que citoyen ñu am ko ci moom balaa ñuy dugg ci mbirum politique et tey jii nag je pense que acte bii ñu ne ñu annoncé ne dinañ ko def benn acte la rek boo xam ne dafay consacré euh, arrogance j'aime pas utiliser ce genre de mot mais ça ça ça traduit en réalité le contenu de ni nga xamante ne si noonu la yenn opposants yi di doxee vis-à-vis de nos institutions cest dire que dem nañu ba désacraliser nos institutions ci président lañ ko tàmbalee yenn saa dañ koy sàllalaw du ñu wax président jaar ci turam xam nga ak benn ton boo xamante ne si jaaduwul sax nga di ko wax ak kilifa waxuma laa ne koo xam ne kilifa ñëpp la. Euh, dugal nañ ko assemblée nationale pour ñu ba di fa di fa ay député di di euh, ak yeneen niveau de langage boo xamante ne si lu doy waar doy doy waar la ba ci yeneen institution yëpp loolu nag dama dama daf may tiital man en tant que acteur politique parce que xëy na la formation moo ko def mais moi je suis un produit de la république dama fonk république parce que dama jàpp ne euh, mooy cadre bi gën a épanouissant pour une démocratie donc loolu sàmm bi sàmm ko ñëpp la war parce que acteur boobu nga xamante ne si mi ngi nekk aujourd'hui dans l'opposition demain il aspire à être dans le pouvoir et que bu ci nekkee am na benn carrure bu mu bëgg am am na benn wegeel bu muy xaar ci ñay jàkkaarloo ak moom mais loolu day tàmbale ci yow jamono jang ca nekkee nga nekk ci posture boobu mais aujourd'hui moi je déplore vraiment cette posture anti-républicaine bi nga xamante ne si opposition bi wala boog benn parti opposition bi mi ngi koy am di xalaata def concert de casserole au moment où la plus haute institution de notre pays dafay jël kàddu pour def son adresse à la nation di wax ak peuple bi yëpp di waxtaan ak ñoom ci li ñu jot a weesu ak fi ñu jëm ak li nga xamante ni moom la nësar ci réew mi. li koy xaar ci message boobu euh, président cest dire euh, message yi dina bëri mais tey lan moom ci gën a ëppal euh, njëriñ mun nga koy xaar ci président de la république. ben un message d'espoir en tant que jeune un message d'espoir en tant que dirigeant d'une collectivité territoriale un message d'espoir en tant que citoyen sénégalais simplement message d'espoir en tant que jeune parce que président dafa dafa dafa jël jeune ak jigéen jiital ko ci politique am. anne deux mille vingt trois mu ne daf ko def année sociale maanaam année boo xamante ni si day dimbali askan bi parce que année la boo xam ne bu ñu xoolee au niveau international dafa bëri ay rëng-rëng année la boo xamante ne si ñu ngi jëm ci beaucoup d'incertitude président jël lu toll ak euh, six cent milliards dugal ko ci jàppale famille yi ak ménage yi lu ama am solo la loolu jàpp naa ne lu lu jar a la beneen bi aussi moom mooy mu bëgg a promouvoir l'entrepreneuriat ak la jeunesse bëgg ndaw ñi parce que gis na ne Sénégal ndaw ñi ñu ngi ñu ngi yokk macha allah mu nekk une chance mais chance boobu noonu li koy def chance mooy ñu encadrer leen fexe bi utal leen ay ay yoon yoo xam ne ku ci nekk di nga am fooy mën a jaar pour mën a am dara loolu aussi lu bëree bare bëri la ci jot a investir te fas na ci yéene dolliwaat en en deux mille en deux mille vingt-trois tant que collectivité territoriale. Euh, président wax na ko chaque année dafay yokk li muy jàppale collectivité territoriale de cinq milliards cette année si aussi mu war a lancer beneen programme à côté du PACASEN bi nga xam ne ñun ñi am chance su diriger des villes yi nekk ci euh, centre urbain yi amoon nañ ko mu war a lancer le PACASEN rural maanaam ni ñu doon defee ay investissement au niveau des villes mu ñëw aussi yokkaat ko waa yu mel noonu ñu yokk ko au niveau de certaines Euh, ville rurale loolu aussi loo xamante ne si la lu ama am solo la en dehors nag maintenant de yeneen yi nga xamante ne si incha allah bi dañ koy bàyyi ak le président bu si yegsee mu euh, biral ko. d'accord euh, ñu jàll ci euh, peut-être que li ñuy li ñuy tëjee ah muy li nga xamante ni xew na fi muy audio yi entre Ousmane Sonko ak Adji Sarr dossier Sweet Beauté ba léegi pendant deux ans ñu ngi ci ñu ngi ciy wax mënuguñu vider li nga xamante ni moom moo di mbir moomu ñu ngi leen ciy tudd yéen waa Benno Bokk Yaakaar ne yéen yéen a nekk derrière cette ce complot bi nga xamante ni Ousmane Sonko depuis le début mi ngi koy mi ngi koy tudd Adji Sarr ñëw. dëggalaat ko ci audio ne li am yëpp Mamour jàlloo moom moo ko moom moo ko waral eh, yow noo ko noo jàngatee dossier aji Sarr Ousmane Sonko ak fi mu tollu jamono bi. ben je vais vous surprendre en vous disant que yàlla rek laay seddeel ne déglu ma ci ay audio xaw ma li ci nekk honnêtement pour ma mën a prononcer wu de façon je dirais précise mais li ma ci xam mooy un pays c'est du sérieux mënuñu jël lu tollook Sénégal. ak fi enjeu àdduna toll ak ñun fi ñu jëm ak virage bi nga xamante ni si fa lañ toll ñu bëgg a résumer suñu histoire ak suñu suñu suñu eh, institution ak suñu eh, vie démocratique ci benn histoire bu concerne ñaari nit ci lu xew ci bërëb boo xam ne ñoom ñaar ñoo fa nekkoon vraiment moi je voudrais que ñu am plus de hauteur dossier boobu noonu mi ngi entre les mains de la justice ñi ko séq ñi ngi dem di wuy ji ku ci nekk la nga wax wala lañ la waxal yaa ngi indi la nga ca xam ak la nga ca am ci ay preuve pour étayer sa position dama jàpp ne la ñu bàyyi justice mu continuer liggéeyam parce que la justice c'est pas l'opinion c'est pas liy xew ci mbedd mi ak nit ñi ni ñu koy xalaate la justice aussi c'est pas ci presse bi ak ci réseaux sociaux yi lañ koy régler et je pense que aujourd'hui il est grand temps que justement ñu ñu def un un arrêt à ça arrêter vraiment di divulguer yoo xamante ne si warul génn ci mbedd mi parce que dafa ci bëri ay manipulation ay yoo xam ne daal vraiment euh, ñu bàyyi justice mu def liggéeyam na mu waree moo gën pour tout le monde et je crois que pour ce dossier là comme ni ma ko waxee woon ci benn émission euh, pour mettre à l'aise tout le monde vraiment il faut que mu leer benn yoon. procès. je crois c'est le c'est c'est le y a y a pas d'autre choix d'ailleurs procès mu leer pour tout le monde après la vie. sénégalaise continue parce que nag Sénégal ëpp na ay problème mu euh, bëgguma sax tudd tur yooyu parce que vraiment sama kersa mayu ma ko mais daal waaw Sénégal romb na loolu daal. Sénégal romb na loolu mais dossier bi yaa ngi koy wax léegi c'est entre deux personnes deux sénégalais yoo xam si ñoo am problème euh, mais dañ ci gis loxol politique ci biir depuis le début euh, ñi ngi tudd ay hommes politiques yoo xam ne si nii ci yéen la ñu nekk ñu ne ñoom ñoo bëgg a faagaagal un opposant Ousmane Sonko. loolu aussi ñu bëri sénégalais yi euh, xalaat boobu la ñu am loolu la ñu def ci seen bopp te noonu lañuy ñuy xoolee dossier bi est-ce que loolu tey du indi problème ci procès bi nga xam si ni yaa ngi koy tudd euh, bés bu amee ba ñu jàpp ne Ousmane Sonko tey dañ ko bëgg a faagaagal ndax loolu du indi jafe ci réew mi comme niñ ko defee woon ci euh, mars 2021 ma xam nga comme li ma wax sànq l'opinion en tout cas bi nga xam ne moom moo exprimé wu c'est peut-être pas l'opinion la plus répandue parce que ñi am accès ci médias yi xëy na ñoom ñoo ëpp li ñuy wax ñu jàpp ne loolu sénégalais yi noonu la ñuy xalaate mais li ci ëpp solo moom mooy un procès il est équitable maanaam ku ci nekk la ngay wax di nga am moyen wu prouver ko moi je sais pas honnêtement comme j'ai dit déglu ma ay audio parce que ça ne m'intéresse ça ne m'intéresse vraiment pas nekkuma ci aussi fond dossier bi pour xam ku ci def lan mais li ci wóor moom moo di ne on a une justice indépendante ku ci def loo xamante ne si waroo ko cee def mais loolu aussi la justice dina trancher et sanction bu ci am tamit jàpp naa ne justice bi dina ko teg ci ñi nga xam ne moom la ñu war a sanctionner d' ñu bàyyi la nga def sa sa sa message boo xam ne si ni comme ñu ngi ci fin d' bi li ci des euh, daanaka bareetul pour ñu pour ñu dem ci ñu bàyyi la nga def sa sa sa ay vœux yoo xam ne si ni ba nga ko adressé au peuple sénégalais. waaw di euh, sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu fekkee euh, anne deux mille vingt deux bi ak càmm may ñu aussi ñu jàll ko si jàmm di ko ci sant également bi mu ñu ci mayee ndam ci élection yi nga xamante ne si jotoon na ci am muy élection locale yi. Euh, di ci sant population ji de Thiaroye Kaw yi nga xam ne ñoom la yàlla la ci seeni i carte ñu falma di euh, dund ak ñoom yaakaar bi nga xamante ne si am nañ ko ci suñu jëmm ju xeebu ji ba jiital ñu pour que ñu mën a ñoŋal seen dundin yokk ko ci wàllum éducation yokk ko ci wàllum santé yokk ko ci wàllum environnement ak cadre de vie yokk ko ci wàllu jeunesse ak sport yokk ko aussi ci wàllu femme ak entrepreneuriat yooyu yëpp mu nekk ay domaines yoo xam ne ñi ngi ci góorgóorlu am na lu ci jot a def waaye doyul te incha allah rabbi dinañ fas yéene yokk suñuy jéego mais ñuy ñaan ak sénégalais yëpp euh, at année deux mille vingt trois nekk année bu gën année boo xam ne dina fonk année yi ko romb yëpp ci nag domaine yëpp mais aussi dina doon année jàmm année boo xamante ne si dina tax sénégalais yi yëg seen bopp bu baax a baax a baax ci seen dundin euh, yëg seen bopp ci ak yokkute. yëg seen bopp ci ndam yoo xam ne ñun ñoo koy bokkandoo mais di ñaanal aussi président de la république moom mi yàlla teg ci bopp réew mi yàlla may ko sago ak kàttan ba li mu nësër ci suñu réew yàlla defal ko ci euh, ak jàppandal ba lépp loo xamante ne si naal na ko ci projet euh, yàlla may ko kàttan bu mu ko yeggalee ak ñi ci àndal ñëpp ñu ngi ñaan atum jàmm ñu ngi ñaan atum yokkute ñu ngi ñaan atum xéewal ndax xéewal moo gën naa tànge yàlla nañ ko yàlla defal Merci beaucoup euh, Mamadou Gueye maire de Djiddah Thiaroye Kaw nekk aussi euh, président euh, bu parti leneen euh, bokk ci euh, Benno Bokk Yaakaar moom la ñu àndaloon tey ci waxtaan bi ñu ngi koy remercier bu baax a baax euh, ci waxtaan bi am na solo di remercier ki nga xamante ni aussi jàpp na ci émission bi pour ñu mën ko def muy Seynabou Diatta ak ki nga xamante ni moom mooy le chef de protocole ñu ngi ñu ngi leen remercier di remercier sama technicien bi nga xamante si moom la àndal tey muy Libas Mbaye yéen ñi doon nekk ci biir réew ñu ngi leen jox dig daje ba benn yoon jërë ngeen jëf